waaw yow doo ko def vite fait. waaw defal loofe. benn benn dama lay won benn ayca loofe. gis nga. ah dama yoon gars yi. fogal mm-hmm. mm-hmm. fogal këyit bale. waaw li sama këyit la. inspecteur day mat. non gis nga gis nga inspecteur day mat madame saa téyel ma lépp bul nooyi. Mm-hmm. gis nga téyel këyit bi. ma téyeeti waaw léegi daal la ragal. ma sóoraale. gis nga këyit bi bisimilah rahmaani rahim. dama yoon gars yi rek. dañuy ñëw ni la dañ lay seetal ci enveloppe. waaw. lii enveloppe la xool leen ko baax dara newul ci biir nañ ko nañ ko jël ani Babacar ak munti waaw dara dara dara ci biir gis ngeen ko nii enveloppe la gis nga ko nii waaw ñu la ñaanal soxla ci enveloppe bi ma ñaan nga ñaan uh-huh. ci kayit bi ñaanal auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi soxla sama soxla sama soxla eh. gis ngeen ko mu jox ma kayit bi mu dugal ko ci biir enveloppe bi uh-huh. <coughs> daal di dajji enveloppe bi. Mhm. nii. nga kaste ko. jaaju ko ni mhm. mm. tej enveloppe bi. wa ah wa amna ñu xam dañ koy tek mm. ni la tok ci. tok ci. Mhm. waaw waaw. amna ñu xam dañ la taxaw ci. waaw amna ñu la xam dañ la tek ci say loxo. waaw amna dañ la julli ci ñaari rakka. ha nga def ci sa jë. waaw amna ñu xam ne nag dañ la amna ñu xam dañ la taxaw ci. ba pare ñom dem dox ci seen soxla. bala fa. nga taxaw ci ay waxtu. ah ginnaaw bi yow bëggoo nga taxaw ci rek. waaw gëm ko. te man yeewu la. waaw mm. nga taxaw ci rek. Mm-hmm. enveloppe bi nekk nga taxaw ci taxaw ci taxaw ci taxaw ci. bu dee doxi soxlaam bu dox ay soxlaam. xëy na sax day ndékki wala dina kurus gi su um tari. tari kurus ba woon démb def nii. def ni wax a wax a a wax a wax a wax a wax. mooy itam daal di la daal di jël benn genre paaka wala sere jox ma sereng bi. waaw waaw mu la ko mm. ñi dañ koy daaj moytul jam sa bopp. ñi dañ koy dajji. waaw suñ ko dajjee. waaw waaw. suñ koy dajji. waaw yaa ngi gis. gis nga. Ah! Uh-huh. gis nga li ñu def. Uh-huh. Ah! bii ban moytul waaye yow fooy bi amul woon dara bi. gis nga. waaw gis nga. Uh-huh. fooy bi ma joxoon nii moom moo nekk nii. Ah! gis nga ko nii. Eh! fooy bu weex tàll loo tari. soxla soxla soxla. non non ta alxuraan nga doon wax. waaw lii lan lii la. alxuraan la uh-huh. gis nga. ba ñu xaatim ko nii. waaw. wan ko sa caméra. ñu ngi nii. te ci enveloppe lañ koy defe uh-huh. loolu naka lañ koy defee te gin dañ koy def da ngay tiit xulli sa bët uh-huh. man mi benn ci man. voilà enveloppe yi ñaari enveloppe la. yu ñu tegalee. ñaari enveloppe di ndoy ba. si ñaar xool la bu wax. gis nga ko ñaari enveloppe la benn enveloppe bi dañ koy xotti dugal ko ci biir kayit bi nga ma joxoon ñu ngi nii yaa fi kayit bi nga bi nga ma joxoon ñu nii fekk dañoo préparé ay enveloppe mhm. yu bari dagg ko ak ay kayit yu toll nii ñaari enveloppe la benn bi mu nii dañ koo dañ koo sof dañ koy wàññi dañ koy sof gis nga ko nii benn enveloppe genn wàll enveloppe baa ngi nii mm-hmm. enveloppe bi bi ma leen wanoon mi ngi nii pour wan la pour wan la ko enveloppe bi nii lañ koy def gis ngeen ko nii tëj ko nii jël beneen ah, dugal ko ci biir enveloppe bi mm-hmm. su ko dugalee ci biir enveloppe bi mi ngi nii këjukaay yeeg yëpp a ngi nii mm-hmm. dugal fi kayit kayit bi nga xam ne moom lañ xaatim la dugal ci biir tëj ko jël enveloppe bu bees bi amul dara ñu dugal ko ci su la ubbilee nii ne la gis nga enveloppe la nga ne waaw ñu tej ko dugul këyit bi tej ko ci biir suñ koy dajji ginnaw lañ koy dajje comprend nga waaw su paree nag ñu tey galaaj li ni nan la dañ lay dañ lay wax dañuy wax sa soxla yow sa wujju bi mo la liggey sa yaay jëkkër mo la liggey na nga sa xar mo weex na nga def ni ni fekk lo lepp ñu wax dara du ci dara mm-hmm. li ñuy wax lépp du dara noonu noonu def nit ñi commerçant ya ca HLM man la commerçant ya ca HLM ya ca marché ak classe commerçant yi yeeg commerçant ci gën a yab parce que xam ne ni jigéen ñi ñoo gën a bëgg affaire u seet ak góor ñi léegi góor ñi gën a joxe góor ñi gën a dóor matt non jigéen ñi jigéen ñi tamit dañu ci bari dañuy jël seen i bagage teg seen say jël sa goraba am na jigéen ñi sa or ñu jox la lii la ñu laaj la or laaj la ba laaj loo amul nga la di lebi yu mel nii la Seydina Muhammad su fekkee yow mënoo liir alxuraan ci nga gën a deewee allo waay waay waay mënoon nañ ma leen téyel ba ci kanam waaleykum salaam soxna si na ngeen def xanaa di la ziyaar lool ak di la dégg ci li